demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way dee ya تنكبر woon fa bar وصل للحق من الحق المبين لي خادم بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي خادم بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينصاتي جالب النيران او جالب العارين من بولي سيني عبد الله بن علي ان سيرين جيمي ما كو بولي سيني عبد الله بن اك سيرين جيمي يوني لين في يوم آه. دا بيسوب سيرين بي موي ماغلو دار خدوس جي آه، نان دا بيسوب سيرين بي ماغلو دار خدوس جي ren day téeméeralu at. waaw ren day téeméeralu at daa tombé mu am téeméeri at. waaw bi sëñ bi yéegee ak léegi. waaw dafa toll si ren téeméeri at. waaw bi nag waxoon mu mu mu mu màggal ko wax nañ ko yaatal lool. waaw sëñ Muntaxa nag moo moo sant sëñ Ahmadu Moxtaar. ne na ko yaatal na ko yaatal fépp. ñu am yéene eh, yaatal ko ndakaaru ak Louga ak Diourbel. ñu am yéene yaatal ko ndakaaru ak Louga waaye ak Njaaréem ñi nga xam ne fi sëñ bi mujj feeñe si nag mooy jàng téeméer ak ginnaaw sëriñ bi. Eh, lépp muy téeméeri at bi. lu mu ñu jural ak ñekk ñu indi ñu ko indi jëriñ Touba ak ak askan wi jullit yëpp. nee eh, lu mu jural ak indi gi ñu mu jural lu mu jural askan wi. ñu ànd sëñ bi di seen ñu feeñal ko. ñu feeñal it njabootu sëriñ bi seen liggéey ak ñi àndoon ak moom di liggéey ak ñi àndoon ak sëriñ bi di liggéey ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall ku mel ni maam kenn ku ne xam li mu doon ci yoon bi kenn ku nekk xam li mu doon ci yoon ndax mooy buntub sëriñ bi ndax mooy buntub sëriñ bi eh, fukki fan ñaar fukki fan nag lañ ko war a màggal lañ ko war a def ca njaareem ñaar fukki fan yi nag lañ ko war a def ca njaareem waaye fukk ak juróom-ñeent ya waaye fukk ak juróom-ñeent ya boo xoolee ci atum tubaab sax bis boobu la sëñ ñëwoon Touba nee na boo xoolee ci bis boobu la sëriñ bi ñëwoon Touba. sëriñ bi nañ ko jagleel maam Cheikh. sëriñ bi nañ ko jagleel maam Cheikh Ibrahima. nga xam ne moo ko moom. nga xam ne moo ko moom. ci wàllu sikkar lépp waaw. ci wàllu sikkar tudd yàlla ak taxaw ko bis ba lépp rek. moo tax mu ne ñëw yëgal ko sëñ bi. moo tax mu ne ñu ñëw ñëw yëgal si la ko. nga xam ne sa bis la. nga xam ne sa bis la. Baye Fall Baye Fall mën cee soññi mbooloo mépp cee soññi mbooloo yëpp waaw ba ñu xam ne noonu la ko sëñ bi bëggee ba ñu xam ne noonu la ko sëñ bi bëggee waaw ñuy sant nag bañ laay bañ laay ñu ngi fi lool barke sëñ Tuubaa waaw ñu ngi fedd nag kóllëre bi bu baax ñu ngi fedd li kóllëre bi nee na a baax li ñu doon ci maam Cheikh nee na moom li mu doon ci maam Cheikh nga xam ne sax mënuñoo wax ci moom lu sori moom mënta wax sax ci maam Cheikh lu sori waaye maa ngi ànd sëñ Abdou Lahad waaye mi ngi ànd ak Serigne Abdou Lahad ak sëriñ Gueye ak eh, ñu ñëw wóoti fi sëñ Cheikh Mbacke ñu ñëw wóoti fi Serigne Cheikh Mbacke mu sëñ Abdou xam moo jiite comité bi mu Serigne Abdou Aziz nga xam ne moo jiite comité bi ak Serigne Ousmane suñu Cheikh Gaynde Fatma ak Serigne Ousmane moom suñu Cheikh Gaynde Fatma ak ci ànd ñëpp ak ñi ci ànd ñëpp ñoo waroon na ànd ñëwandoo fii nee ñoo waroon na ànd ñoom ñëpp ñëwandoo waaye dañoo aw ci beneen côté ñun ñu aw ci wet gi waaye ñoom dañoo aw ci genn wet ñoom aw ci wet gii ñu ñëw fi nag ci ndigalu Baye Amadou Makhtar ñu ak ndigalu Serigne Touba Cheikh Amadou Mountakha ak ndax bis bi ñor gu ko ñor ndax bis bi ñor gum ko ñor moom Cheikh Amadou Mountakha moom Cheikh moo tax mu génn téeméeri million moo tax mu génn téeméeri million ni nañ ko waajale bis bi ni nañ ko waajale bis bi kon nag euh, loolu rek moo ñu fi andi nee moo leen indi la ca war lépp def na ko la ca war lépp na ko waaye ne xam ne maam Cheikh waaye ku ne xam na maam Cheikh. digganteem ak sëriñ bi. digganteem ak sëriñ bi. ni mu toll ci sëriñ bi. ni mu toll ci sëriñ bi. ak li mu doon ci sëriñ bi. ak li mu doon ci sëriñ bi. ak ni mu wonee sëriñ bi. ak ni mu wonee sëriñ bi. nga xam ne mooy buntu sëriñ bi. nga xam ne mooy buntu sëriñ bi. moo tax ñu fa bis boobu jagleel ko ko. moo tax ñu fa bis boobu jagleel ko ko. di ñaan ñu àgg ci jàmm. di ñaan ñu àgg ci jàmm. te mel ni mu ko bëggee. te mel ni mu ko bëggee. ci barkeem. ci barkeem jërëjëf jërëjëf Mbacke. si turu sëriñ Amdi Fall mi toog di sëriñ Modou di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall. njorti waaw sëñ bi nee sant na bu baax waaw nah, jottali ab nuyoo akub siyaar waaw nah, mu jaar si si jëm ju tedd ji ak ñi nga àndal jëm si kilifa yi nga xam ne ñoo ne sa kanam te ngeen ànd liggéey bi yàlla si Cheikh Modou Cheikh Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Modou Moustapha yàlla na yàlla yàggal ko te wéral ko yàlla si Cheikh Modou Mountakha mi moom yoon wi moom bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal ñu ngi sa sëñ bi nee na mi ngi sant bu baax di leen gërëm di dollee am mbégte waaye di dollee am yaakaar di feddali yaakaaram ak pas-pasam si jëmmi sëñ tubaa xam ne Seera Faal moom la mu waxoon sëñ tubaa rek dana ko woon féetal ak yàlla yow mi ko xam ma féete ak yow man mi la xam loolu foofu rek la Seera Faal masane jël léppam jox ko jëbbal naa sama boobu àddina ak àllaaxira eh, sëñ bi laa daaxoon ku ku ku jaay lëf te yaakaar njëgg loolu génn sa loxo kon ba mu ko defee la wane ni moomatul jëmmam moomatul lu aju si jëmmam noonu la joxe woon boppam sëñ tubaa ni nga ko waxee léegi moo moo feeñal liggéey bi taxaw sëñ Tuubaa féete ko fa mu ko war a féete ba yoon wi tey jii képp ku si tàbbi te ñu bëgg nu tuddee la ab murit da ngay dox doxin wu mel noo nee mooy joxe sa bopp jël si yaakaar yëpp sëñ Tuubaa du ku nuy roy ku nuy yaakaar la ku nuy liggéeyal la foofu la murit yëpp nekk kon nag sëriñ baa ngi sant di gërëm ci cër boobu yi nu ko jox fas yéene it noonu ko sëriñ bi bëggee mu ànd ko fas yéene taxawu ko ànd ko njabootu Seere Faal gépp bu soobee yàlla fukki fan ak juróom-ñeent le 19 si njaareem taxawaay bu fa war a am bàyyi koo si njabootuk Cheikh Rafal sëñ bi dina joxe ndigal njaboot gépp ñu def ko waaw bu soobee yàlla waaw sëñ bi dina joxe ndigal ñu taxawu ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee te diglee ko noonee incha allahu le 19 bu soobee yàlla waaw <laughs> waaw <laughs> waaw sant tey sàkku nag sëriñ bi ñaanal ñaanal sëñ bi bu baax a baax ndax yéene yéene ji mu am si liggéey sëñ Tuubaa bii yéene ji kawe na lool bu koy wax sax nun ñii sax dañuy am jaaxle waaye dañoo xam yéeneem ni mu kawee si bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa mm-hmm. ay mébétam fa mu àgg si mm-hmm. liggéeyal sëriñ bi ah yéen nag Mbàkke lépp ngi seen loxo ah ngeen ñaanal ko Mbàkke na wér ba lii mu yanu bëgg koo àggale mu àggale ko fa mu ko bëgg a yóbbu waaw ah, jërëjëf Mbàkke لم ينحني درر نار الدنيا واقتسني الباخي بخير سنيا ملكني ما لم يبع عني وخاد لي بقاو بالمن كرامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصنفاني كرامتي kitaabu man rafaani bilal jinaani musnafaani maxaama maatan xannaha nufuusa wali siwaaya demam nga umpuna mindeef te um na boppam kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñemu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne